sant yàlla rek di sant Serigne Touba baax ndax euh, ni ko Sénégal yëpp di ko dundee noonu laa ko dundee nekk weeru safar di ko def nekk taalibe Serigne Touba mu war ñi ñu war ko def di ko def loolu rek moo waral juróomi fan yi vraiment mu dafa nekk gënal ci ñun waaw yàlla moom moo dimbali baaxoo di def di wax waaye ci daara yi moom du ma ci jub ndax ku jël sa doom yóbbu ko muy jàng alxuraan jox ko waa kër Serigne Touba yaakaar naa ne doo ci jóg waaye daal lépp li nga xam ne jullit moo ngi koy def rek sama loxo mu ngi ci. Serigne defal na ma lépp lépp la ma defal loo xalaat loo xalaatul loo gis loo gisul.